teewul teg fi mais dafa nett li luñ fi waxoon loolu rek moo ko yóbbee li ko dal ñi ngi wax nag monsieur la président monsieur Diomaye fay ak monsieur le ministre Ousmane Sonko ñoom ñaar la ñuy waxal ñooy ndeyu réew mi tey te bokk na ci liñ doon xeex ñoom bi ñuy campagne mooy lan dañoo war a bàyyi ci réew mi làq doom duma doom doon nañ ko bañ doon nañ bañ itam bi ñuy laaj réew mi ne lan réew moo xam ne ku wax ñu jàpp tëj boo sëqatee sax ñu tëj la nan ko bàyyi ñoom ñoo doon wax ne réew moo xam ne kenn amul droit wax li nga xalaat ñoom buñ commencé seen nguur ci lool ñoom loolu booy na seen i nopp kon ñu ngi leen di ñaan buñ ko débité seen nguur ñu bàyyi sama tijaan ndaw mu ñibbisi dellu ci jumaam dellu ci daaraam continuer jàngale former waat nit ñi mu doon former àndaat ak nit